dañuy militer pour la souveraineté te kenn mënu wax souveraineté aussi su fekkente ni tu as des éléments étrangers qui sont là xam nga su fekkente ni woon sax ay éléments étrangers ay américains par exemple am nañu fi nekk mais c'est différent coopération du ban je veux dire su fekkente ni ñun def nañu un accord librement consenti mmh. ni leen vous venez voici les conditions seen présence bi leen koy fay. Euh, et pour tel truc voilà pour telle durée et cetera mais ñii c'est depuis la colonisation. les Français sont implantés au Sénégal avant il y avait euh, 1500 euh, euh, soldats des forces françaises du Cap-Vert. Ouais. bi Abdoulaye Wade ñëwee dañ ko réduire ba indi ko environ alors mais li ñu wax mooy. base yi mën na mën nañ dem parce que amuñu dara actuellement rien ne justifie leur présence ici hmm. lu dul ñoom seen intérêt bopp parce que n'oublions pas que chaque fois su amee conflit gis nga conflit ma même conflit euh, Malouine yi du mu amee euh, euh, avions yi Dakar la doon décoller pour dem di di bombarder ça ils ont besoin de ces bases là donc loolu ñun waratuñ ko nangu waratuñ ko seetaan hmm. ce qui fait que les forces peuvent quitter gis nga en yi ñu fi occupé yëpp et tout ça te yooyu ci biir emprise yi. c'est pour pour protéger les intérêts français voilà. waaw mais duñ ko écoutez euh, ñun nous avons nous sommes un peuple souverain nous avons une armée aussi professionnelle. et cetera nous avons des forces euh, armées yoo xam ni mën nañu assurer cette cette fonction là. doo dem par exemple euh, France. daa deni pourquoi ñun mënuñu ni moom dañ fa bëgg benn base comme ça Sénégal yi bare nañ fi su dara amee ñun pour la sécurité des Sénégalais vous pensez qu'ils vont l'accepter hmm. donc yooyu ils peuvent libérer les emprises ñu dem ñu ñu jóge fi totalement xam du amati benn soldat français bu fi nekk am na nañu base navale base aérienne yooyu yëpp ñu ñu dem ñu mën a assurer léegi nag mën nañu parce que li ñu wax c'est pas une séparation totale avec la France bon ok partez maintenant on a plus besoin on a plus rien à mm. faire avec vous mm. on a quand même euh, des relations historiques et sécuritaires mais ñun gis nañu si mbokk xam nañ ni li nga xam ni euh, ñenn ñi moom lañ doon nangu mënatuñ ko nangu parce que c'est une jeunesse consciente qui est là mm. qui sait que mën na jël son destin en main donc su suñu demee li ñu wax ni naan way dañu bëgg def benn académie léegi boo xam ni mën na fi rester pour def la formation et tout ça yooyu yëpp ay subterfuge la rek pour pouvoir rester changer de fusil de pôle. Mm-hmm. su ñu demee su amee ay besoins l'armée sénégalaise quelquefois l'armée américaine envoie un détachement. Ouais. pour des formations ponctuelles après ñu dellu. Ouais. l'armée allemande également euh, fait bien la sûr, même chose. et ça donc les Français pourront faire la même chose on est d'accord sur euh, les principes voilà donc daal pour la souveraineté il faut le Sénégal ne doit plus abriter de force euh, les forces françaises